salut les amis ziar naa bu baax a baax dal leen ak jàmm ci seen podcast wolof teg bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie maanaam xarala yu bees yi ci kàllaama wolof alors avant tout nag ñoo ngi lu bu baax a baax jafe-jafe yi nga xamante ni euh, mm, jot na am Sénégal ci fan yi ñu génn di ñaan yàlla defal ñu tawféex bu bëri euh, mais ñu jàmm ba nga xamante ne lu mel ni dootul amati Sénégal ñoo ngi aussi jaale Sénégal yépp ci ñi nga xamante ni jot nañ ci ñàkk seen bàkkan di ñaan yàlla xaaraleen ci aljana yi gën a kawe Euh, ñi nga xamante ni ñoo jot am ay blessures ci euh, ci ci ci manifestation yi ñoo ngi ñaan yàlla saafara leen ba ñu mën a jógaat continuer seen i dund seen activité normalement alors situation yu triste yooyu nag moo tax euh, semaine bi ñu génn jotu ñoon am benn force bu def benn épisode donc ñoo ngi ñaan yàlla jafe-jafe yi yem fii ba ñu mën a retrouver suñu Sénégal maanaam le pays de la Teranga alors tey nag le 13 mars 2021 ñoo ngi ci dernier épisode saison 4 bi maanaam saison 4 partie de épisode 13 ginnaaw bu ñu waxtaanee ci wàllum développement informatique ak langage de programmation yi waxtaan ci naka la ñuy liggéeyee pour gën a tey dañuy waxtaan ci beneen domaine bu ama am solo maanaam la sécurité informatique lan mooy sécurité informatique pourquoi la sécurité informatique lan mooy objectif am lu tax ñu war a aar application yi aar matériel yi aar aussi jokkalante bi alors pour waxtaan ci thème boobu nag tey dañu ci ànd ak suñu ñaari invité ki si njëkk mooy Gérard Dacosta ingénieur la en sécurité informatique sysadmin la mais aussi formateur la fële ci IT for life je pense que Gérard gars yu bëri min nañ ko ci podcast bi parce que yàgg na fi jaar def ak ñun ak épisode yu am solo Gérard ziar nañ la. delloo ziar Ibrahima. alors comment tu vas yaa ngi ci bu baax a baax. waaye maa ngi nii rek di kontaan saa su ne teew si sa émission parce que émission bu intéressant la vraiment aw ma sa fay quoi te maa ngi bëggee ñëpp waa macha allah yow suñu yow yow suñu waay nga quoi alors suñu deuxième épisode bi nag mu ngi tudd Bamba li analyste la en cybersécurité mais aussi moom moo jiite li ñu wax cyber 221 je pense que gars yi nekk Twitter dinañ ko xam bu baax a baax alors Bamba ziar nañu la. Eh, delloo ziar. waaw kontaan naa si. alors comment tu vas. waaw tranquille ça va bien. gère. ba ma bachelier bon cybersécurité awareness ingénieur aussi bon yor naa benn start-up en cybersécurité awareness comme cyber 221. vraiment bon je suis kontaan naa si invitation bi ak aussi li ma koy partagé ak eh, Gérard Dafosa merci. Mm, ok macha allah alors Gérard Gérard yaa ngi woor. maa ngi woor bu baax. Gérard maa ngi woor loolu dama ah, Gérard Gérard maa na effet quoi. mbaa mbaa amoo benn gato boo teg à côté di ko grignoter ndànk rek. non non non non. <laughs> je pense que man ak Bamba après dinañ la jàppale dinañ woor ay fan jàppale la quoi. waaw <laughs> ah, loolu la ñuy def sax. waaye gis nga alors ñu dem directement ci sunu sujet tey bi maanaam sécurité sauver l'informatique alors jamono bi ñu toll nii nag nouvelle technologie yi dañoo occuper benn place bu am solo ci bépp activité boo xamante ni dañ koy def utilisation smartphone yi ordinateurs yi entreprise yi aussi ñoo ngi créer chaque jour ay service yu bees pour que population bi wala sax yeneen entreprise di ko utiliser alors avec internet aussi tey jii mën naa jël samay xalaat wala samay données dugal ko ci sama téléphone wala sama ordinateur jaarale ko ci ay application mu génn jaar ci ay réseau jaar ci ngelaw li jaar ci ay câble wala ci ay appareil ba yegg ci beneen téléphone wala beneen ordinateur ci beneen bërëb bu sori sori boo xamante ni bokkul ak fi ma nekk loolu nag muy firndeel ne nit ñi matériel yi ak application yi ñépp ñoo lëkkaloo maanaam interconnexion alors est-ce que jokkoo boobu noonu di am aar nañ ko est-ce que aussi li nga xamante ni moom la ñuy jokkalante suñu biir aar nañ ko est-ce que aussi jumtukaay yi nga xamante ni moom la ñuy utiliser pour jokkoo bi est-ce que aar nañ ko donc loolu yëpp nag moo war a tax ñu waxtaanee tey sécurité informatique alors Gérard lan mooy sécurité informatique. bon sécurité informatique mën nañu nekk mooy mooy ay xarala yi euh, ak xelu nit ñi ñuy bu tax ñu mën a aar benn euh, réseau informatique pour mën a euh, aar nit ñi ñuy utiliser réseau boobu noonu. donc xanaa moom xaw a jox euh, doole euh, définition bu parce que dama ko bëggoon traduire en français. ok déjà su ma ko naree wax en français dem tam mu yaat cadre émission moo tax mooy jëm naa entraîner ak xarala. ok et comme ni ñuy wax mooy jumtuwaay xarala yi donc jumtuwaay xarala yi su ma si jox exemple mooy euh, lépp loo xamante ni matériel la bu ñuy teg pour mun a aar nit ñi si si mhm. réseau bi. Mhm. léegi mu am tamit beneen partie bi mooy xelu nit ñi. mooy ñoo xamante ne ñoom ñooy nekk ci ginnaaw mooy ñoon ñu mën a utiliser xarala yooyu noonu pour mun a aar nit ñi donc loolu noonu mooy mooy mooy mooy sécurité informatique. ok ok alors je pense que avant déjà ñuy dugg en profondeur ci sécurité informatique bi alors dañuy dégg souvent ñuy wax système d'information ci entreprise yi alors Bamba. man bëggoon naa euh, nga expliquer nga expliquer ñu lan mooy système d'information ak lan moo ko composé ci biiram. d'accord bon pour lépp luy système d'information mën nañu kaa jàppee comme lu ñuy woowee ay ressources ressources la yoo xam ne mhm. ñooy tax ñu ñu mën a collecter mën a classifier wala ñu mën a stocker wala ñu mën a gérer wala pour mhm. pour que information bi puisse circuler de manière fluide au au sein de l'entreprise. ok concernant par exemple si composant yi yaa mhm. am na lu ñuy woowee yaa des actifs primordiaux mhm. actifs primordiaux yi mën nañ mën nañ leen a tuddee comme tout ce qui est processus métier information information de base ensuite yaa am na lu ñuy woowee tamit des actifs support actifs support yi mun naa nekk comme site bi mooy mhm. entreprise bi fi mu nekk exactement emplacement physique bi mën naa nekk personnes yi mooy nit ñi mooy employé yi mën naa nekk tamit matériel bi mooy employé Euh, matériel yi ñuy utiliser au sein de l'entreprise tout ce qui est PC tout qui est mhm. tout ce qui est smartphone mhm. mën naa nekk tamit réseau mooy comment les les appareils réseau sont branchés ci biir entreprise bi ok mën naa nekk tamit logiciel logiciel so ko déggee mooy comme système d'exploitation yi les mhm. applications qu'on qu'on peut yi mën utiliser au sein de l'entreprise mën nekk tamit organisation soo déggee par organisation mooy ne par exemple comment nan la ci entreprise nan la nit ñi di di jokkalante woo ba ba a def ne information bi puisse circuler de manière de manière fluide te ak ku si ku si war a mën a jot rek nga mhm. nga mën a jot ci information boobu ok alors alors je pense que ni nga expliquer c'est très clair et donc su ma koy tënk bu ma déggee bu baax donc je pense que su ñu waxee sécurité des systèmes d'information donc mooy ñu aar bépp composant wala bépp pàcc bi nga xamante ni mu ngi nekk ci biir système d'information bi et pàcc yooyu je pense que mun nañ ko xaaj ñaar saa à dire mooy parti technique bi ak parti sociale bi c'est-à-dire bu ñu technique mooy maanaam euh, hardware bi mooy maanaam euh, disque dur yeeg tout ce qui est matériel software bi comme ni nga ko waxee mooy application yi équipement télécom yi mooy routeur yeeg ma juumul corrigé leen man damay def ay bêtises des fois <laughs> ah, voilà am na aussi process yi alors am na aussi wàllu social bi mooy euh, mooy règlement yi tâches ak personnel bi mooy li Gérard wax léegi nit ñi nga xamante ni ñooy liggéey ak matériel yi ah ak yu demee noonu alors alors foofu am na benn question bu mu bëgg laajte c'est-à-dire alors Gérard lan moo tax donc ñu war a aar différents composant yooyu nekk ci biir système d'information bi maanaam lan mooy objectifu déjà si euh, sécurité système d'information yi lan moo nekk seen objectif. merci pour question boobu laaj nga lu am solo. Mm-hmm. donc mooy lu nit ñi di wax xam nga tey euh, ay temps dinañ ne par exemple am na ku am jamaa Euh, nit ñi yëpp dañ lay topp il faut nga protéger ku am or et cetera donc il faut nga xam que données euh, données mooy ñun lu ñuy partager lu ñuy joxante ci réseau bi mooy source information boobu noonu mooy données mhm. loolu mooy objectif sécurité informatique mooy naka la ñuy def ba aar mhm. information yooyu noonu données ba benn nit koo xamante ni bokkul si entreprise bi bañ si am accès donc loolu mooy loolu mooy objet donc parce que dañu ne léegi daa am terme bu bees bu génn mooy ku am données yu bëri rek yow yaa moom adduna donc données données moo gën a garaaw moo gën a ku am sax euh, pétrole wala ku am ku am jama boo amee données données yu bëri yoo xamante ne exemple boo gisee Google ils sont très riches boo gisee ñoom Facebook ils sont très parce que dañuy exploiter ay données te hmm. données yooyu noonu mooy comme ni nga koy waxee rek képp ku am données rek actuellement donc loolu mooy objectif sécurité informatique mooy d'abord protéger données léegi suy protéger données bi ce sera sur cinq axes mooy d'abord intégrité données yi donc par exemple intégrité su ma la ko nee jox exemple mooy par exemple man ma bëgg la yónnee benn affaire sécurité informatique dafa war a def que affaire boobu noonu di information boobu ma lay yónnee mu hmm. wóor la que man maa la ko yónnee. ok mu am partie foo xamante ni mooy confidentialité. Hmm. genre données boobu noonu ma lay yónnee. bu nekkee yow rek laa koy yónnee ñun ñaar rek rek rek ñoo koy xam bàcc li du ko xam. Eh? mu am benn partie beneen parti bi mooy authentification. authentification tey par exemple système nee nañ système informatique bu respecter boppam. dafa war a mhm. def objet authentification mooy par exemple man mënu ma ñëw rek ma taal benn ordinateur entreprise rek dugg si si page d'accueil bi commencé bës il faut que ma mën a ah. bind sama tur ak mot de passe sax bu ndaw. ok si si mu am mu am beneen bu ñuy woowee non répudiation mooy tey par exemple ma def benn affaire si internet wala ma bañ ko def. Mhm. mais sécurité informatique dafa war a mën a ñëw pour mën a ne est-ce que Bathily moo ko def wala du moom loolu la ñuy wax non répudiation tey tey par exemple su nekkoon man maa yónnee email bi wala ma yónnee benn affaire suba ma ne non du man sécurité informatique war na mën a xam man la wala du man léegi mu am beneen bu mujj bi mooy disponibilité tey affaire yooyu yëpp ñu wax. bu nekkee bu si mujj bi neew fa rek la donc benn système informatique dafa war a nekk accessible chaque jour mhm. chaque mois chaque année sept mhm. jours si warul taxaw dafa war a di nekk accessible affaire yooyu donc loolu mooy euh, loolu mooy sécurité informatique kii yooyu yëpp lay gérer en même temps te loolu yëpp finalité mooy pour lan aar données yi aar loolu noonu ñuy dugal si internet pour beneen nit bañ ko mën a jël autorisation ok là je pense que c'est hyper clair li nga wax euh, leer na trop c'est-à-dire wax nga confidentialité wax nga authentification wax nga intégrité données yi wax nga disponibilité moom nga bu a ak aussi non répudiation donc je pense que thème yi nga euh, termes yi nga wax yépp c'est-à-dire c'est hyper intéressant ni nga ko expliquer c'est très clair alors léegi damay bëgg par exemple pour nit ñi gën a comprendre euh, importance su sécurité informatique bi importance aar données yi ak aar matériel dañuy joxe quelques jafe-jafe yoo xamante ni mën na arriver ci différents yooyu noonu nekk ci système d'information bi par exemple Bamba euh, est-ce que par exemple mën nga ñu euh, suñu jëlee par exemple partie hardware bi ak partie software bi est-ce que mën nga ñu jox ay jafe yoo xamante ni mën nañ ko jànkuwante ci wàllu sécurité juste quelques exemple pour que nit ñi xam nga am na ñoo xamante ni peut-être duñ ay informaticiens xamuñ ci lu bari mais boo joxee exemple. Euh, d'insécurité bu am ci wàllu euh, hardware wala software après dinañ mën a comprendre ah ok donc problème yi mën na arriver donc te bu ko sécuriser mën na tax du arriver allez vas-y Bamba. dëgg bon concernant lépp lépp luy hardware software aussi bon baax na tamit ñu expliquer ñaari mots yooyu mooy la. parce que bon mm-hmm. peut-être certains mën nañ kaa jaawale du genre. absolument maintenant soo soo déggee hardware. Mm-hmm. mooy c'est la partie matériel mooy matériel bi mooy PC bi en personne. léegi pour mu gën a clair mën nañ kaa wax ne lépp lu mën a laal. ok c'est de manière c'est de c'est manière physique. comme lépp luy carte mère lépp luy disque dur. Mm-hmm. lépp ay processeur. Mm-hmm. lépp luy PC bi en tant que tel. Mm-hmm. léegi bon concernant le software software c'est c'est tout ce qui est loolu loolu mën ñu kaa laal noonu lañ ko mën a waxee comme par exemple tout ce qui est logiciel. tout ce qui est application. Okay. les systèmes d'exploitation. ce des des softwares extravert rek léegi maintenant par rapport bon à à des problèmes de sécurité yo mën a lié côté hardware bi mhm. par exemple aujourd'hui yow soo soo nekkee entreprise mhm. nga nga teg sa machine sans pour autant nga y en un cordon pour ñu utiliser pour ñu mën a attacher PC bi de personne de de telle sorte que ne kenn rek mhm. ñëw yëkkati machine bi yow loolu benn benn protocole benn processus de sécurité la. dans le hardware ba tey. am mhm. na par exemple y a y mhm. au niveau au niveau par exemple des des processeurs. parce que récemment y avait y avait une faille mhm. benn faille bu ñu en fait c'est am na lu ñuy woowee. CSME. loolu benn puce la puce bu ndaw boo xam ne. Mhm. comme genre petit unité cent unité centrale la. Mhm. buy buy tegu si ko processeur bi. ok maintenant unité cent loolu noonu tax mu mooy tax ñu mën a contrôler chiffrement fichier aujourd'hui si benn pirate amee accès. Mhm. à à ce puce là par exemple il peut causer d'énormes dégâts au niveau niveau des PC. ok de en plus. processus processeur Intel yooyu c'est ya a y a beaucoup de PC dans le monde qui qui sa faille là te a grave mooy ne instant bi kenn bon kenn amul benn correctif. ok ok léegi soo jëlee logiciel li soo jëlee partie logiciel moo mën nañ wax système d'exploitation bi. Mhm. bon ya en 2017 je pense y avait un un faille benn faille mhm. Eternal Brew. Mhm. loolu benn file la woon bu bu doon bu doon touché benn protocole bu ñuy woowee SMB. léegi de manière très ramassé léegi file boobu daan tax par exemple benn pirate su amee accès au niveau du réseau de l'entreprise du genre. Mhm. bu defee benn scan ba trouver file bi. Mhm. il peut mun naa dugg si machine nit ki. Mhm. machine entreprise bi su duggee il peut faire tout ce qu'il veut il peut être admin il peut supprimer de données il peut il peut faire tout ce que l'admin l'administrateur principal peut faire okay. moo tax loolu ñuy wax dans la plupart du temps que avec les systèmes d'exploitation faut toujours utiliser une une licence parce que ici au, Sénégal bon il y a des entreprises yoo xam ne bon dañuy jël risque boobu Okay. il utilise des des systèmes d' exploitation craqués te te yooyu danger bi mooy ne am doo à jour à temps. Okay. de ce fait que yow mi ce système c' est c' vulnérable tout il existe aussi des des plateformes dans dans le web qui permettent de hmm. nga gis yan yan appareil à travers le monde sont sont tel ou tel. Mm si le pirate utilise ces plateformes là il peut il peut aller même il peut voir mën naa si benn PC boo xam ne si benn entreprise lambda la nekk. Mhm. automatiquement il il va exploiter cette vulnérable là cette vulnérabilité là qui est mhm. au système d'exploitation. Mhm. parce que entreprise bi sàggan na ba utiliser wuñ lépp luy mm, système d'exploitation boo xam ne daa am licence. ok ok. alors je comprends très bien euh, euh, euh, ni nga approche bi nga expliquer insécurité bi mun a am ci hardware bi mooy tout ce qui est matériel physique maanaam lu mun a laal ak insécurité maanaam ñàkk kaaraange bi nga xamante ni mooy am aussi ci logiciel yi nga jaaree ko ci logiciel bi gën a mag pratiquement bi ñuy utiliser ci ordinateur yi mu nekk système d'exploitation bi alors après système d'exploitation yi aussi je pense que am na ay yeneen logiciel yu mun a installer ci machine bi cest à nañ am benn entreprise X bu in bu créer benn application boo xamante ni dañ koy installer ci euh, benn machine wala benn téléphone application boobu bañ koy defar aussi su fekkee ne amul benn sécurité bi nii mun na jural nit ki koy utiliser ci biir machine am wala ci biir téléphone am benn euh, vulnérabilité benn benn ñàkk kaaraange donc mooy li nga wax rek cest à logiciel yi il faut que liñ ci mën a jàngat mooy que ni nit ñi nañ xam ne mun nga protéger sa machine nga installer beneen ordinateur beneen logiciel boo xamante ni mun na ci indi insécurité. cest a dire ci wàllu aussi hardware bi mooy physiquement euh, logique yi euh, matériel physique yi comme li nga ci wax noonu mun nañ aussi être exposé c'est-à-dire comme euh, par exemple hardware yi mun na nekk ay serveur ah, mun na nekk ay affaires yu ay ordinateur ay routeur je pense que ci leen bokk ñoom tamit coono voilà. voilà exactement donc ñooñu ñëpp mën nañ nekk exposé wu ci danger donc nag il faut que loolu yëpp ci sécurité la bokk foog ñu sécuriser affaire yooyu yëpp quoi alors déjà wax nañ waxtaan wax nañ ci wàllu insécurité bi mën a am ci wàllu hardware ak software alors su ñu jëlee parti réseau ak parti personnel bi maanaam ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci matériel yooyu ak ci logiciel yooyu mais aussi euh, outils yi nga xamante ni mooy ni permettre ñu jokkalante seen biir maanaam réseau ñu créer ay réseau ah ak aussi process yi nga xamante ne ci la ñuy liggéeyee yan exemple jafe-jafe nga ñu mën ñu jox nga ñu mën a jox ci wàllu sécurité euh, yi nga xamante ni mën nañ ko ràññee foofu noonu. Euh, merci pour laaj bi donc déjà ñuy wax ay termes mooy sànq ñu ko bàcc li waxee réseau. Hmm. peut-être ñu bëri ñuy déglu dinañ bañ a xam lan mooy réseau. donc euh, réseau mun naa joxe exemple mooy comme par exemple euh, mu nekk yow mu nekk man mu nekk bàcc li ñu bëgg waxtaan mu nekk nekk sa côté. Hmm. donc dañuy créer ay liens yuy permettre que ñun ñu mën di communiquer. donc loolu mooy réseau. donc si biir réseau bi mun nañu dañuy am ñaari ensemble mooy. parti matériel mooy lépp loo xamante ne mooy lu bàcc li waxoon sànq ordinateurs yi imprimante ak yooyu noonu yëpp mhm. ak parti humaine mooy nit yi nit yi permettre pour manipuler réseau bi donc loolu mooy tax réseau existe day am partie matériel ak partie humaine buy gérer réseau donc tey ñu bàyyi matériel yi nii kese kese te amul nit bu koy gérer donc c'est du réseau donc loolu noonu loolu noonu dañ ko war a protéger te même nu mu la ko waxee sécurité informatique daf ko dafa anticiper si loolu mooy li ñuy woowee les piliers de la sécurité informatique donc dafa am la partie sécurité physique mooy lu bàcc li wax naka la ñuy aaree matériels yi de manière physique mhm. mu am la partie logique mooy nu ñuy aaree matériels yi de manière logique mu am la partie communicationnelle mooy nu ñuy aaree nit ñi mhm. su ñuy def seen échange yi si réseau bi mooy man fu mu war a wax tey par exemple bu nekkee euh, man manak yow dañoo war a jóonante ay affaire si réseau bi mhm. bàcc nekk si digg bi bëgg xam lu ñuy def mooy bi l'homme du milieu mooy nit ki si digg bi man of the middle. mooy nit ko si digg léegi moom day jéem xool réseau bi di xool est-ce que mën a yow lu ñuy yónnante moom mun na mun na si jot. mais sécurité informatique rôle am mooy naka la mënee aar que man ak yow lu ñuy échanger man si yow rek ak man ak yow rek lay des bàcc li du si mën dara. mooy sécurité communication ne mu am partie juridique. Mhm. tey par exemple attaqué nañ la def nañ la ay ay ñaawteef ak yooyu noonu yëpp. te yow ban moyen nga am pour jël nit ki nga diri ko nga yóbbu ko ci justice bi mën a xam lan lay risqué. donc loolu mooy partie sécurité juridique léegi mu am partie bu mujj bi mooy sa beneen laaj bi naka la ñuy aaree nit ñi mooy mhm. sécurité humaine. donc partie boobu noonu soxlawu ñu euh, nga jël ay machine ay tournevis déedéet partie boobu dañoo soxla nga mën a waxtaan ak nit ñi. wax leen par exemple les bonnes pratiques yi ak lii nga war a def. nii nga war a def sa mot de passe nii la war a mel. Mm-hmm. waroo dugg si si site boo nekkee si entreprise waroo def nii di conseiller nit ñi nit ñi mën a xam lan moo leen di xaar bu nekkee nii ak nii ak nii moo am. donc gis na sécurité informatique gars yi dañ ko mm-hmm. def de telle sort que lu nekk am na ba pare lu ñu si war a def. oui si voilà. si si alors je pense que je pense que loolu am na solo trop déjà ni nga expliquer euh, lan mooy réseau expliquer lan mooy euh, jafe-jafe yi mun a am si rajo si nit ñi si rajo alors mais euh, am na benn terme bu may dégg ñuy wax ingénierie social déjà sax mos naa ko dégg ci benn ci benn webinaire boo def je pense yow mi tu vois da nga doon ci wax ci affaire ingénierie social bëggoon naa après nga ñëwal ñu un peu ci ingénierie sociale mooy lan exactement. <laughs> ok mm. ingénierie sociale bon boo boo nit ñi fii en Afrique dafa bëri dafa mm-hmm. bëri ingénierie sociale mooy attaque boo xamante ne par exemple nit koo xamante ne suy def ñaawteef bi si si internet. Mm-hmm. day utiliser sa sa sa sa sa sa xel. day foowee sa xel. Mm-hmm. day ñëw par exemple xool yow lan nga gën a soxla. mu ñëw mu jox la ko ba pare jéem a am dara si yow te lu muy am si yow moo gën a bëri. te affaire te phénomène boobu mu ngi def ay ravage si si si si Afrique. te loolu yëpp lan moo ko waral mooy. nit ñi xamuñu ba pare pauvreté bi tamit parce que tey exemple bu gën a yomb boo xamante ni chaque jour mhm. euh, ñu koy def gars yi mooy nit ki day ñëw par exemple Bamba Bathily tey yëpp naa ko xam naa dina yëpp naa ko <laughs> léegi moom mu def a def mu nar euh, sociale bi mhm. léegi yow nga nar a nekk victime bi day ñëw mu la noo def nga ne ko tamit ça mu ne la euh, man nii laa tudd diw diw diw diw après yow tamit nga ne ko nii nga tudd après jékki-jékki xam nañ que nit ñi genre soo ko waxee benn affaire bu sensible nit ki dëggee dina ko laal mu ne la man par exemple toujours dañuy jéem a def ay jigéen lañu parce que si internet booy wax ak nit doo xam kan moo nekk ci ginnaaw. si si léegi mu la par exemple euh, dama amoon jëkkër divorcé naa may ak doom yi affaire yooyu noonu après yàggul jëkkër ji sama jëkkër tee. mais bàyyi na ma alal bu bëri. léegi alal boobu noonu pour ma récupérer ko par exemple dama soxla ut ay avocat léegi yow boo ma si dimbalee ma am. xaalis boobu noonu pour avocat yi après yow dinaa la am jox lii si xaalis bi par exemple bu la laajtee un million te après yow nga na a gagné cent million yow sa xel automatiquement da ngay nekk ah man su ko joxee un million après ma am cent millions. si si xaaral ma jox ko. ba pare ñoom dañuy jël temps dañuy créer ay kayit créer lu nekk dañuy ay photoshop affaire yooyu dañuy créer ay kayit ak lu nekk ñu yónnee la ko ne léegi après yow sa xel da ngeen ah ñii lu ñu def. donc xaaral ma ma ma yónnee un million yoo noonu boo yónnee un million. Mhm. mu toogaat ba si yàgg mu ne noo kayit yi xaw na compliqué mhm. est-ce que doo ma deux millions. oh là tamit nga nga toog nga ah, cent millions. de toute façon cent millions moom mooy un million puis deux millions. ah lu des bëri na ma yónnee. mu di la layte di la layte ba soo moytu sax di nga ko jox cent millions te doo xam cent millions. waaye doo ko tey tellement uh-huh. million. jox ma te parce que sa xel day nekk si ki loolu benn forme la am na beneen forme boo xamante ne mm-hmm. nit ki day ñëw mel ni comme jigéen yónnee la ay photo ne ay photo taatu noonu ko mënee wax ay photo yoo xamante ne nit ki day wane yar yaramam bi yëpp léegi mu ne la moom la léegi yow par exemple yow en tant que góor nga ah neex na mu la léegi dama bëgg yo tamit yónnee ma sa bos soo bëggee ma continuer la yónnee léegi nga gis nit ki tamit day toog toog ba si yàgg ne ah naa ko rek que man tamit dina ma yónnee rek nga yónnee boo yónnee nag instant boobu noonu nag lay jël nag nee na léegi sa photo yii nii boo ma fayulee dinaa jugal dugal internet. chantage yi commencé quoi. léegi nag yow tu es obligé voilà yow da ngay obligé tey da lay ne cent mille suba mu ne la cent mille yu parce que sama xarit yi nee nañ ñoom tamit dañuy bëgg seen wàllu yi ma deux cent yónnee ainsi de suite gis naa ay nit yoo xamante ne ñu ngi joxe di joxe di joxe te xamuñu te alors que tey bu ñu jege woon par exemple jege kenn ku mel ni ko bàccale da leen expliquer que nii ak nii lu yoon lii la la may pour nga mën a poursuivre nit ñi ak nii et puis wane ni ñi que sur du plateforme yi yëpp ñooy nangu internet bi nga dugal ay photo yoo xamante ne naka sudul noonu genre ay Facebook mhm. euh, à part Twitter mhm. ay Facebook ak yéen dañoo am seen politique même YouTube mhm. nu mënoo dugal photo boo xamante ne respecté woon seen règle yi wala vidéo wu ba respecté woon autopsie bi ñëwee xamuñu loolu. donc mhm. dañuy tiit ba dañuy obligé bëgg di fay. ok ok loolu yëpp travail de sensibilisation si ginnaaw te Bathily ak équipe am ñu ngi jéem a def. Mhm. ak cyber 221 que je félicite beaucoup. si si donc euh, loolu la en gros. ingénierie sociale quoi mais dafa bari forme. dafa bëri forme ay forme rek la mais ay yeneen forme laa la wax. man gis benn. Mhm, voilà gis naa benn avocat boo xamante ne. ni ko ne ko ne ko ñëwal fay ñëwal. Euh, ba gaan bi fay avion dem ba Afrique du Sud ñu wanal ko xaw ma ay kër affaire yooyu noonu ne ko kooku indiwaat dinaat avion ñëwaat Sénégal ñu ne ko léegi yónneel nit ki yónnee xaalis lu takku takku takku yónnee ko gars yi mhm. gars ne tël dem dama ah. ko ingénieur social dafa garaaw yenn saa yi du yem du yem que si si ordinateur bi genre dañu jékki-jékki dinañ dem sax yenn saa ñu déplacé loolu dañuy am ay complice mm, mm, moo tax yenn saa yi pour nga mën koo xam mm-hmm. dafa jafe alors je pense que sax même suñu suñu suñu suñu suñu suñu tante yi wala suñu maam yi wala suñu parent yi nekk euh, peut-être même ñu nekk Dakar wala ñu nekku Dakar nekk dans les euh, un peu dans les régions et tout dinañ am problème yi demee ak ay Orange Money ak ay yeneen plateforme yi déjà da ngay dégg ñu leen woo sax je pense dinaa leen dama gagné nga benn affaire envoyé ma lii donc yooyu yëpp il faut que ñu moytu ko euh, bañ a bëgg lu yomb c'est-à-dire ku la woote xamoo ko mu lay wax waxu xaalis bu ko tontu boo mosta jouer ci ay jeu bu la nit waxee gañe nga defal attention bu baax demandeel quelque trois quatre personnes seen avis nga laaj leen normalement di gis à côté koo xamante ni dina la leeralal tu vois donc loolu la ñoo amoon euh, loolu moo taxoon noonu message boobu laa bëggoon ñu lancer moo taxoon ma taxaw ci ingénierie social bi parce que loolu dafa nekk benn fléau bu bu mag bu nekk xamante dafa bëri Sénégal actuellement alors maintenant je pense que am nañu benn idée euh, ci lan mooy sécurité informatique ak lan moo nekk ay objectif am lim nañ aussi ay quelques <coughs> problèmes yoo xamante ni euh, dafay faral di am euh, te ñu war ci indi ay saafara alors li ma bëggoon ñu dugg nag actuellement mooy naka la ñuy def ba assurer sécurité système d'information bi et pour ça dañuy dugg souvent dañuy dégg souvent ñuy wax lu ñuy wax politique de sécurité alors Bamba lan mooy politique de sécurité informatique. pour lépp luy politique de sécurité benn document la boo xam ne day définir dans un premier temps lépp luy lépp luy sécurité au sein de l'entreprise que ce soit de manière physique de manière organisationnelle de manière logique moom mooy défi benn document buy définir l'ensemble des acteurs au sein de l'entreprise comment ils doivent interagir avec la sécurité exemple benn utilisateur benn employé bu bees buy ñëw ci entreprise daa war a respecter politique de sécurité yi ñu teg au sein de l'entreprise comme ça comme nga mën a comme ça yow un jour su problème amee au moins yow am nga fu ñu ko teg ba pare léegi yooyu mën nga ñëw rek appliquer par rapport na maintenant la politique de sécurité peut toucher mën naa laal différents niveaux comme comme organisationnel comme physique comme tout ce qui est logiciel comme tout ce qui est application web lépp am day am benn politique de sécurité bu koy bu koy ji. alors mais politique de sécurité boobu ñan ñoo koy bind exactement. oui bon mën nañoo wax côté décisionnel. mooy ñëpp ñuy mooy ñu nekk ci kaw. comme genre benn pyramide lay doon. maintenant dans la plupart du temps aussi tout ce qui est politique de sécurité euh, c'est lié avec tout ce qui est IT au sein de l'entreprise ñoom ñoo koy gérer. ñoom ñooy def ay procédure yu ñuy bind la pour pour wax ne tel ou sécurité bii lay laaj bii lay laaj bii lay laaj alors alors donc du du coup man euh, j'aimerais aussi savoir euh, Gérard si fekkee mun nga ñu aussi indil ay euh, ay leeral ci loolu c'est-à-dire politique de sécurité boobu lan moo nekk ci biir quoi exactement lan moo nekk ci biir ak par exemple man su fekkee dama am sama benn entreprise bu bees. ma bëgg mettre sur place entreprise buy def informatique peut-être wala muy def leneen mu bëgg am benn politique de sécurité ma bëgg ko mettre sur place yan jéego lay def naka laa koy mettre sur place ak lan lay soxla ak yan profil de personne ñoo war a mun a def loolu wala ak naka lañ koy defee. Euh, merci pour laaj bi donc tey euh, politique de sécurité dafa nekk benn genre document boo xam ne ni ñu koy woowee mooy. Mhm. kaamel wala bible. Mhm. entreprise bi. donc bokk si document yu gën important mhm. entreprise bi boo mooy wane nan la entreprise war a fonctionner du nekk rek au niveau IT ensemble entreprise nu mu war a fonctionner parce que li ñu woowe ci information ko ensemble moyen technique et non technique yuy former euh, entre réseau bi donc foofu noonu mën nañ fa gis euh, machines yi ak nit ñi ak lépp daal loo xamante ni mooy former entreprise bi déjà si biir document bi. dañu mhm. war a am organisation entreprise bi naka la entreprise bi date de création affaire yooyu donc war nañ mën a am ku nekk responsabilité ku nekk lan ngay def ci biir. Mhm. si biir document bi. si biir document boobu war nañ mën a am règle yoo xamante ne par exemple de bonne conduite yi si euh, sooy def say kii en ligne par exemple mot de passe yi. Mhm. par exemple ñu tàmm di def papa maman. si biir politique dañuy bind waroo leen di bind genre mot de passe yooyu. sinon bés bu entreprise bi amee attaque informatique te après ñu mën a gis que yéen yaa leen tax foofu lañ jaaree ndax seen mot de passe bi da ngeen di am ay sanction ni yang ni donc foofu noonu la ñuy waxee règle dossier yi par exemple ñu ne dossier comptabilité mhm. wala dossier lii ni bàcc li amul droit euh, bàcc li am te dafa nekk euh, bu dafa nekk amul droit consulter ko mhm. kii amul droit def ko genre tey man mënuma la jox par exemple man la politique bii nii en boo monte gis la entreprise bu nekk mooy adapté politique am. ok l' essentiel règle de bonne politique la. surtout si cyber espace bi. genre lan mooy permettre ñu mun ko respecter suñu bëggee aar euh, suñu suñu ici si en ligne donc loolu mooy politique de sécurité donc dafa document boo xam te ne day varié te day évolué tey par exemple mun nañu ne par exemple euh, beneen entreprise mun na ne par exemple bu benn stagiaire ñëwee. Mhm. jox ko lii. Mhm. machine bu bees boo xamante ni du bokk ci entreprise dina ne non non day jël machine ñoo xamante ni laaloon nañ ko ba pare euh, nii nii ak nii def ay durée de mail naka la war a def ñeneen mën nañ def par exemple ay mail bu desee ba un mois day supprimer ñeneen ne deux mois mhm. donc lépp appréciation la toog la waxtaan la mhm. gars yi présenté ku nekk wax kaam rek après ñu jiboo bind dossier bi mën nañ toog d'ici deux ans ñu gis que dossier boobu noonu war na évoluer ñu liggéeyaat Mhm. tu vois donc pour def ko dafay jël temps genre nit ku ko war a bind. Mhm. déjà waa IT dinañ ko bind mais dina am tamit ñoo xamante ni ñii nekk parti administration am te war a parti partie organisation entreprise bi. Mhm. après yow da ngay collecter documents yi da ngay ñëw si ku nekk nga collecter documents yi genre yow war a xam chaque entité. si biir entreprise naka lay fonctionner. léegi naka boobu noonu ñuy fonctionner nga indi si sa couche sécurité pour ne nii ngeen di fonctionner léegi pour protéger leen moo war a am. par exemple am na entreprise yoo xamante il faut ñu dañuy ne budget respecté genre euh, ku ñëw euh, il faut que mu am budget ba pare chaque visiteur doit être accompagné mhm. suy dem sax si ay couloir si ay kii mais am na entreprise soxlawuñu lool genre nit ku nekk day ñëw rek dugg génn doo xam kan la donc voilà ku nekk ak nu muy bindee politique de sécurité ak nu mu koy gérer voilà donc mais dafa am ay idée générale ak ay normes yoo xamante ne war nga ko respecter comme ay normes ISO mhm. xam ay ay yi ngay respecté yoo xamante ne c'est des choses yoo xam dañ ko normaliser donc loolu da nga ko war a di respecté parce que loolu la norme yooyu noonu wax te lan mooy norme mooy loo xamante ni par exemple plusieurs pays plusieurs nations mhm. toog nañ ñu signé ko ne mhm. lii la ñu bëgg par exemple mën nañ ne kuy jaar si yoon bi dafa war a sol en jaune mhm. même bu nekkee yow sa côté gis nga c'est illogique mais nit ñooñu noonu yëpp signé nañ ko nee nañ boo fi jaar da nga war a sol jaune donc yow dañ koy def voilà donc loolu si amoon pour wax ma bàyyi Bathily peut-être am ñu ci ajouté voilà allez-y Bathily. comme comme ni mu expliqué rek sécurité mooy moom mooy gérer les actifs au sein de l'entreprise benn document la boo xam ne nit ki suñu si ñu sukkandiku pour mën a wax ne partie de l'entreprise sécurité bi la fi dem telle partie sécurité bi moo comme au niveau comme au niveau des applications web tout ce qui des mots de passe lépp si si biir si biir document boobu lañ koy définir. ok ok alors c'est cool c'est c'est c'est c'est parfait. alors je pense que sécurité informatique euh, thème sécurité informatique mën nañ ko développer ci ay angle yu bari bari bari et et dinañu si ñëwaat je pense que ci yeneen épisode incha allah cest gën a dugg en wax ci yeneen aspect wu sécurité des choses sax plus technique yoo xamante ni euh, hacking yeeg affaire yu gën a technique mën nañ ci ñëwaat ci yeneen épisode tey euh, dañuy wax d'une manière globale sécurité informatique ak ndax ngay def ba am une sécurité informatique benn sécurité bu baax ci sa entreprise ak yu demee noonu mais avant ñu terminer ni am na euh, ñaari question yu ma bëgg laaj wala ñett c'est-à-dire euh, dafa may revenir à chaque fois euh, ma koy bëgg laaj c'est-à-dire lan mooy cryptographie ak ban rapport la am ak sécurité informatique. d'accord bon ñoo bala ñoo wax tamit ci cryptographie mu ne dañuy wax lan lan mooy tax entreprise hmm, bëgg a utiliser domaine boobu parce que instant bi comme ni ñu ko xamee yëpp attaques yi. il y beaucoup d'attaques qui se passent à travers le monde. Il y a mhm. tout ce de données, okay. des messages. Au sein l'entreprise même, il y a certains messages où les gens peuvent l'interpréter. Maintenant, avec la cryptographie, hmm, day sécuriser loolu lépp cryptographie c'est la base nañu mën nañu wax suñ jëlee sécurité informatique cryptographie mooy mooy mooy cœur bi mooy poumon parce que moom mooy moom garantir tout ce qui est l'intégrité des données tout ce qui est la confidentialité comme comme Gérard ni mu si premier partie bi à travers les objectifs la sécurité informatique à savoir la disponibilité la confidentialité l'intégrité la non répudiation aspect yooyu yëpp cryptographie cryptographie bi da si da si si e e joué parce que parce que tey jii nii soo soo mën jël ñaari cas si application tographie au sein d'une entreprise par exemple tout ce qui est protection contre les cybermenaces cryptographie da ciy mhm. joué bu baax par exemple tey jii soo jëlee soo jëlee application web dans la dans la plupart du temps ya a y a le protocole bi ñuy woowee HTTP mooy mooy mhm. bi bi bi fen ci kaw soo defee www point http point mm, Gérard Dacosta point sn tey jii. Euh, si boobu so amoon login ak moodo de passe benn mhm. benn benn pirate nekk si même réseau que que que man tey jii mën naa mhm. mën naa def ay attaque comme ci main intermédiaire pour mën a intercepter mhm. par exemple Gérard su defee comme comme comme notre utilisateur Gérard mot de mu def euh, Dagosta du genre léegi. vu Gérard du def loolu non Gérard du def loolu Gérard du def loolu. <laughs> yaa ngi tooñ Gérard voilà. man de tooñ léegi comme ni mu ko doon tooñee. léegi léegi léegi vu que ce protocole pas sécurisé léegi facilement date bi mën naa récupérer données yi léegi maintenant. si protocole boobu on va appliquer la cryptographie avec le protocole SSL maintenant avec le HTTPS site bi day gën a sécuriser loolu moo tax ñuy wax. Okay. Dans, la, dans, la, plupart du temps, il faut utiliser les, les sites. yoo xam ne suñ suñ bëggee ñu gën kaa comprendre sax mooy si di am carnet bu hmm. verte carnet bu vert soo gisee hmm. si kaw rek xamal ne site boobu c'est jii am na sécurité am na am na sécurité de manière de manière plus basique ok je vois alors Gérard am na loo ci bëgg yokk cest à maanaam cryptographie ak rapport ak sécurité informatique mooy mooy lu may wax rek ñu bëri genre ñu bëri dañuy def allusion boobu su suñu déggee cryptographie rek pour mm-hmm. ñoom sécurité informatique mm-hmm. mais dañoo war a xam moom rek mm-hmm. euh, dafa nekk benn discipline bu bokk si benn science bu tudd cryptologie ok donc cryptologie dafa bëri ay discipline donc crypto comme ni nga koy waxee l'art de cacher les messages mooy lu ñuy nëbbee euh, messages yi ba beneen nit du ko gis donc mu am tamit la cryptoanalyse mooy contraire am message boobu ñii nëbb naka lañ koy déchiffrer donc dafa bëri ay discipline ci biir cryptologie les cryptographies lan moo tax sécurité di koy utiliser mooy par exemple da koy permettre mooy lu bàcc di wax assurer ne objectif am donc objectif am mooy comme pour assurer intégrité bi xam mhm. donc euh, ak authentification bi non répudiation bi yooyu yëpp parce que utilisation de PKI yi ay environnement de clé xam nga en gestion de clé de gestion mhm. xam nga léegi PKI yi public clé infrastructure day permettre par exemple ngay utiliser ay ay ay ay crypto donc dafa bëri ay affaires yoo xam te après si ñëw comme par exemple euh, asymétrique symétrique euh, ak beneen bi euh, naka la tudd hybride bi donc asymétrique bi mooy par exemple nit ki nit kooku noonu yoo xamante ne day message bi genre Bamba bu crypté message am il faut que moom su nekkee daf ma ko yónnee il faut que man tamit mu am clé boobu noonu mu ko crypté xam nga léegi euh, asymétrique bi boobu il faut c'est l'utilisation de deux clés. Mhm. bu njëkk bi beneen bi symétrique benn clé la. Mhm. asymétrique deux clés. donc euh, day am benn clé boo xamante ni mooy chiffré ak beneen clé boo xamante moom ngay jox nit ñi bu ñu yor ko. Mhm. suñu bëggee déchiffrer. donc léegi mu am hybride boo xamante ne mais c'est que benn c'est que yeneen yi. Mhm. Euh, surtout asymétrique bi. Mhm. yenn saa yi day ralentir système. ok que le le temps que nit ki di yore clé ak yooyu noonu affaire léegi si la nit ñi ne tax duñu mixer ñaar yi moo indi bu hybride bi. donc utiliser vitesse kee ak sécurité donc euh, ñaar yooyu pour ñu jéem ko def mu kii donc après si la sécurité informatique ne comme moom. comme ni ñu waxee c'est l'ensemble des moyens donc moom day xool lépp loo xamante ni baax na mu xëcc ko dugal ko ci côté voilà donc moo tax yenn saa nit ñi il faut que ñu bañ a jaawale que parce que yenn saa yi ma gis étudiants yu bëri ñuy def ñuy def allusion boobu noonu genre ñoom bu ñuy jàng crypto ñu teg ni ñoom sécurité la ñuy def sécurité informatique. ok fekk bokkul ñoom ñi ngi def. voilà ñu ngi ñu bañ ba sax biir palais dañoo am seen propre département crypto ñoom tamit seen parti sécurité informatique. voilà donc il faut que gars yi mën a xam que c'est deux choses yoo xamante ni si différent c'est des mel ni comme par exemple Bathily euh, yor mi def ay compétence am genre mu gis tamit gérer ay compétence yoo xam ne mën na ko dooli si moom mu gën ko renforcer mu mu dooli ko mais taxul euh, que que crypto mhm. forcément booy def crypto mhm. euh, yaa ngi def crypto au contraire mathématique la gën a jege. oui si si si si exactement si si parce que comme ni nga ko waxee rek l'art de cacher des données ça demande beaucoup de compétences en mathématiques ak yu demee noonu quoi. voilà c'est ça si, si. donc gars yi nañu bàyyi di jaawale. si si waruñ ko jaawale parce que euh, maa ngi fàttaliku bi may euh, am na ay cours yu ma doon def avec euh, sama benn professeur bu ñuy wax monsieur Ndiaye. maa ngi koy Ousmane Ndiaye maa ngi koy saluer sax de passage alors dana ñu jox benn exemple tout le temps pour comprendre affaire euh, cryptographie ak genre bi noonu cest am na ay années ci ginnaaw ay ay je pense que ay yàgg na trop ay lan xaw ma leen je sais pas alors bu njëkk bu buur yi bu ñu naan envoyé wante ay message dañuy jël benn bant bant boo xamante ni dafa am benn diamètre cest à bant bi yaatuwaay bi ñu laxas ci benn morceau bu weex wala benn morceau couleur bu mu ci doon ba pare bind ci seen message bu ñu bindee seen message ci morceau bi ci bant bi ba pare cest message bi duñ ko bind directement ci bant bi mais ci morceau bi ñu laxas ci bant bi la ñuy bind message bi suñ bindee li ñu bind ba pare dindi morceau bi ba mu baax jël bant bi jox ko benn nit mu jaar benn yoon ñu jël morceau bi jox ko benn nit mu jaar benn yoon donc ñoom ñaar ñëpp ñoo war a bokk même fu ñu jëm après donc kii day jaar nii kii jaar na li suñ dajee nag ci kii moom message bi il faut que mu am ñaari éléments yi bant boo xamante ni day am même diamètre que bële na le pour que mu mun a liiraat message bi maanaam laxasaat ko ci bant bi pour mun a jot message bi donc tout ça pour dire que sécuri euh, cryptographie ak genre demee noonu ay affaire la yoo xamante ni yàgg nañ ko utiliser je pense ci ay ay année ci ginnaaw quoi ay ay ay ay lan demee noonu donc daan ñu jox exemple boobu noonu pour ñu mën a comprendre clé yi ak genre demee noonu mais yi ñuy envoyé wante ak genre demee clé privée ak genre demee noonu donc c'était juste benn exemple bu may euh, joxe parce que da ngeen rek la fàttaliku. voilà loolu noonu monsieur Ndiaye doon ñu doon ñu jox exemple quoi alors beneen question bi ma bëgg laajte je pense que sax mooy nekk ci dernier question yi mooy sécurité lan moo nekk différence am ak sécurité informatique Gérard. waaw laaj tamit beneen question sax. tey am solo. question <laughs> question yu yu pertinent waaw <laughs> ah non parce que parce dafa nekk yoo xamante ni man daf may daf may travailler bopp bi quoi su ma waxee ne war a wax sécurité rek après dafay am mots yu bëri yu ñëw sama bopp bi ma ne waa mais foog ma xam lan mooy seen différence quoi donc il faut que ma laaj ko spécialiste yi quand même. voilà <laughs> allez mooy lu may taam di wax gars yi su ma posé question boobu noonu dama leen di ne apparemment ñu différence noonu parce que boo ko ñëw presque objectif yi ak yooyu. sauf cyber sécurité boo ko déggee mooy lu ñuy wax cyber cyber c'est donc ba pare état mooy premier acteur bi après mu doog a topp si périmètre am ça couvre. tout un territoire donc naka la benn état di defee pour protéger territoire am cyber territoire am mooy territoire am cybersécurité léegi nag naka la koy defee sécurité informatique de suite pour partie bu nekk donc si biir cybersécurité di nga gis état particulier yi di nga gis entreprise yi donc loolu la léegi sécurité informatique mooy sànq li nga gis c'est plutôt un terme boo xamante on l'utilise pour un particulier entreprise donc par exemple Bamba Bali ak entreprise am Bamba Corp donc naka lay mënee protéger DG en donc maanaam si entreprise lay appliqué parce que nu appliqué du ko appliqué par exemple pour ne citoyens yëpp nii la donc c'est plus du domaine étatique militaire et cetera que domaine que Bamba Bathily am am entreprise am di ko protéger. ok je vois je vois. alors alors je sais que réseau bi xawoon na am tuuti dagg-dagg mais bàcc li aleex wax ñu est-ce que am na loo ci mën a dolli ci euh, différence bi nga xamante ni mun na am mën nañ ko gis entre cybersécurité ak sécurité informatique. bon comme comme <coughs> comme Gérard ni ko waxee rek. <coughs> terme terme sécurité c'est plus. Mhm. c'est plus appliqué au au au domaine des lépp lu jëm ci ci entreprise. du genre léegi eh, yow soo jëlee cybersécurité cybersécurité ça ça ça englobe englobe la sécurité informatique dans l'entreprise ça la c'est c'est l'état c'est les particuliers c'est c'est ki personne lambda bi utiliser téléphone am sax mën naa bokk cybersécurité parce que c'est c'est c'est tout un ensemble maintenant li li li caractériser la cybersécurité c'est comme comme li ñuy wax rek ci cyber c'est tout ce dans le espace parce que cyberespace bi amul amul frontière te tout le monde c'est l'internet de manière générale maintenant soo jëlee sécurité informatique c'est du domaine des entreprises c'est c'est du domaine des des particuliers on parce que li leen di gën a différencier aussi mën nañ si par exemple si si si les moyens de protection par exemple soo demee si entreprise entreprise parce que soo demee léegi ci entreprise yu mënu ma wax ci entreprise yu ndaw yi mais il utilise ay ay système de direction d'intrusion ay système de prévention d'intrusion yooyu la entreprise yi utilise maintenant lorsqu'on parle de cybersécurité bon il utilise plus que tout ce qui les SIEM ay ay système la pour mën a min mën a def monitoring bu yaa si ci réseau bi wala ci système informatique de état bi. ok ok je vois alors donc cybersécurité c'est-à-dire moo gën a yaatu ko c'est-à-dire euh, lim ëmb ci ay euh, ci ci ay composant ci ay nit ci ay matériel ci ay territoire moo ëpp foofu sécurité informatique parce que sécurité informatique mën na nekk ci biir entreprise bi kese wala ci biir euh, voilà euh, benn parti kese quoi mais cybersécurité nag suñ ko waxee moom nag day englober déjà territoire bi yëpp day englober état bi population bi entreprise yi fa nekk ak tout tout tout donc cybersécurité moom moo gën a yaatu day su ma déggee ni ngeen expliquer d'accord alors leneen li ma bëggoon a wax aussi mooy ban conseil ngeen di jox bépp wala entreprise par rapport ak sécurité informatique Gérard. voilà donc euh, man même développeurs yi que ça soit développeurs yi que ça soit ñeneen yi tamit ñuy def réseau ainsi de suite mooy lu may ñu ko wax ku si nekk dafa war am notion en sécurité informatique donc tey par exemple développeurs yi. Euh, man par exemple may jël exemple sama rakk bu góor moom mu ngi France di jàng développement donc moom fii bu muy nekk Sénégal euh, euh, di jàng ESP xam nga daa bind ay code gars yi di ko ne nii nickel mais bu mu demee benn def benn test ça l'a beaucoup marqué gars yi après dañoo genre le code était résultat bi ñëw na lu ñu soxla woon am na mais gars yi bu ñu ko génnee le bonnes pratiques ñu ngi ay bonnes pratiques yu mu def ak yu mu kiiwoon moom il était étonné donc après si la toog mu ne dorénavant xam na ko code dafa am lu war a respecté. donc noonu la tamit tey par exemple benn développeur bu war a mën a defar benn code dafa war respecter ay normes par exemple dafa war a am ay notion sécurité ne par exemple lii waruma ko utiliser à lii waruma def lii wala ma def lii ak lii ak lii léegi nag lu si des mën na gis benn bàcc li mën na ko léegi analyser sama site nga wax ma est-ce que site bi respecté na norme yooyu tax tey par exemple mun na aar sama parce que comme ni ñu waxee mooy lu mu koy may jékkalee sécurité à cent pour cent amul ñun lu ñu mën a def mooy jéem a améliorer affaire yi mais tey par exemple nit bu dem ba décider attaquer la c'est parce que pare na pour attaquer la te d'habitude xam nañ que acteurs yi ñoo gën a aay euh, gars yi parce que ils ont du temps voilà ils ont ils ont du temps et ils ont euh, de la patience donc ñoom dañuy nekk foofu chaque jour di analyser ñun en entreprise da ngay bëri affaire yi ngay def ba au temps doo mën a nekk da ngay nekk sa responsable sécurité informatique mais da ngay def yeneen affaire donc mënoo nekk di concentré wu rek ne que da ngay protéger un site alors que ñee dañuy jël seen temps di comprendre voilà donc donc lu may conseil gars mooy am leen notion en sécurité informatique même école yi surtout école yi laay wax parce que yenn saa gars yi dañuy formé euh, après voilà na école yi di def au moins benn cours boo xam te découverte en sécurité informatique au moins ñu mën a nekk voilà ñu mën a nekk codeur bi tey par exemple boo defaree si def mot a passe doo dem def benn mot de passe xam tout la wala nga def benn mot de passe passé asserti après nga ne yow protéger nga sa base de données ak yeneen affaire yoo xamante ne ay bonnes pratiques yoo xamante ne lépp cybersécurité sécurité informatique état na ko ba pare lu si des mooy nga mën a xam appliquer léegi nag nga dem si comme ci même réseau dafa am lu mooy réseau boo tegee équipement yi branché branché lépp dox na rek ça va am ay normes dafa am lu tax lii defee fii lii am de de ressources. ainsi de suite et par exemple imaginez yow nga équipement yoo xamante ni moo gën yo yoo yooyu gën a soxla si entreprise yow nga branché ko directement si routeur bi nga def parce que da nga soxla bi gaaw léegi yow nga jël sa firewall par exemple mooy li protéger réseau nga ñëw nga yóbbu ko si euh, beneen partie bi mooy partie access bi boo xamante ne foofu la nit ñi di connecté wu nga ne foofu ngay protéger tey hacker bu dugg si sa réseau atteindre na sa sa serveur sa serveur yu gën a mais ce réseau tax que mu bañ a dina fonctionner bu baax di nga bloqué gars yi ne yow doo bloqué parce que bu xoolee pont bi sa serveur branché noonu directement si routeur alors que bonne pratique bi la la wax après routeur bi mooy lu indi internet firewall mo war a ñëw après firewall mu am euh, benn switch buy buy distribuer après yeneen équipement yi doo ko ñëw waaw yooyu yëpp ay la fii yenn saa gis gars dañuy defar ay réseau comme ñoom l'essentiel ñu def yi dox buñ ko nee ping baa nga ne ok ok ñu wax la sa kër ñu ne la affaire pare na mais nga gis acteur bu yegsee bu xoolee réseau bi day reetaan dene lii man jox nañ ma ma bunt tu vois parce que day gis ay opportunité yu bëri yu bunu yu mun a exploiter quoi ah man dem naa entreprise yu bëri dem naa entreprise yu bëri bu defoon ay ay genre challenge genre damay ñëw si sam navigateur def cent cent soixante huit point un point un def entrée automatiquement maa ngi si routeur mhm. genre changé sax a foofu du ko orange ba pare même voilà admin admin même moom. c'est dangereux c'est dangereux alors je, je vois que je vois que tey réseau bi am na am na problème parce que on a du mal à entendre bu baax tu vois dafay dagg yu bari sax tu vois alors je sais pas euh, xam naa sûrement réseau bi moo am problème c'est sûr quoi mais alors mais on va essayer de faire avec l'essentiel mooy euh, nañ jot exactement message yi nga xam ne moom ngeen di lancer wala Bamba wala Bamba yow mën nga ñëw ci même question bi aussi c'est-à-dire yan conseil nga mën a jox développeurs yi nga xamante ni ñoo nekk ci entreprise yi wala ñi def réseau euh, wala entreprise yi ci seen jëmmi bopp yan conseil nga leen mën a jox en termes de sécurité. si si côté développement d'application yi. Mm-hmm. bon am na am na lu ñuy woowee sécurité by design by design. ok les sécurité by design bi ça veut dire que. projet application bi su commencé rek la sécurité bi di dugg mais duñ xaar par exemple ba site web bi pare ñuy soog a hmm. ñuy soog Gérard pour mu ñëw xoolal par exemple site bi ba xam c'est sécurisé ou pas maintenant par exemple bon soo si si application mobile yi ci hmm. développement bi de manière générale daam hmm. daam ay phase comme comme benn projet ñu jëloon léegi benn projet premier partie bi mooy étude préalable mooy exigence yeeg définition fonctionnelle d'une application yow a gën a léegi si soo jëlee partie boobu noonu daa am baat bu muy bu correspondre ci si part si wàllum sécurité bi foofu tamit bon yow soo jëlee nit bu nit bu xelam màcc si sécurité léegi mhm. soo jëlee étude préalable bi côté sécurité bi tamit foofu na ngaa war a def lépp comme définition ci exigence lan la lan la sécurité bi mën a indi si si dès la conception sécurité bi lan la mën a man lan la mën a indi si si côté boobu léegi soo demee si développement côté côté codage ak yooyu noonu côté tamit day am benn benn symétrie par rapport à la sécurité mhm. foofu foofu nga mën a def lépp luy ay revue de code ak de sécurité pour xool ba xam ba xam développeur bi il bien respecté tous les bonnes pratiques envers le code ba xam juumun si benn virgule wala juum si benn ba xam comme hmm. comme genre soo jëlee yaa les yaa des failles qu'on appelle les les failles SQL loolu dans la plupart du temps si si base de zone yi si application bi lay lay nekk na si base de données te te loolu. Mhm. genre c'est au début. léegi par exemple développeur bi en faisant son site su su ben benn benn nit comme Gérard mu mu wax ko nooy def ba comme yenn faille de type application yi comme injection SQL yi def ba ba soo soo dee codé web di nga ko jëlaale en charge léegi yow mhm. site bi su pare yow faille boobu doog si parce que dans cent pour cent des sites web à travers le monde même si au Sénégal y a y a y yoo xam ne bon la faille est là ce sont des des failles de type fiscal mais bon soo amee yenn compétence tu peux tu jaar sax benn firewall ou autre mën nga ko mën nga ci accéder. alors je pense que tey on a je pense que tey on a un sérieux problème de connectivité de connexion. Voilà, parce que le truc d'Aïdag et tout ça, et voilà, mais je pense que voilà, la connexion est très, très, très, très, très, très mauvaise, tu vois, mais. voilà rejet bi mooy loolu quoi te baaxul quoi alors donc kon li ñuy def mooy dañuy dem euh, juste ci euh, lan moo nekk seen mot de la fin c'est-à-dire déjà li ngeen fi wax yépp am na njëriñ déjà tu waa Euh, et je pense que nit ñi mun nañ koo utiliser mën nañ ci bàyyi xel bu baax surtout ci wàllum sécurité ingénierie sociale bi wàllu seen matériel yi wàllu software bi et tout ça donc question yi euh, ngeen fi yëpp yu am solo la alors juste benn question boo xamante ni am na benn internet bu ko posé maanaam Mahe Mahe Sow la tudd alors moom danoon laajte nit ki yan background maanaam yan xam-xam la war a am pour nekk ingénieur en sécurité informatique est-ce que soxla na mu am ay ay background ay xam-xam euh, préalable quoi alors donc il faut savoir déjà day def programmation da war maîtriser mooy benn langage bu muy def si programmation lu si topp mooy après bu doog a def sécurité genre si euh, sécurité lu si gën a kii da ngay orienté wu après savoir au moins maitriser benn genre orientation après nga doog a ñëw indi couche sécurité bi genre mënoo ñëw rek nga jékki-jékki rek commencé def sécurité te par exemple yow Bamba Bathily su ñu ko jëlee ma def ko responsable de sécurité des systèmes d'information sama entreprise par exemple man mi ma am benn stagiaire bu ñëw wala benn kuy gérer sama réseau kooku bu tafee benn commande sax si routeur bi Bathily xamul commande boobu noonu lan la naka la Bathily di mën a def suivi nit ki ak audit nit ki du ko mën waaw donc donc tey par exemple su ma nommee tamit Bathily mu nekk di gérer benn entreprise boo xam ne gars yi ay code la ñuy def euh, Bathily mosul codé bu ko gars yi joxe code yi mu lire moom naka lay mënee jël code bi ne par exemple maa ngi ajouté couche sécurité bi mu ngi nii mën a nekk donc il faut que déjà mu am benn spécialité si benn domaine après mu doog def orientation cybersécurité sécurité des systèmes d'information pour mën a ajouter partie couche am mooy couche sécurité waa voilà loolu je pense que je pense que ça c'est ça c'est clair cest dire il faut que nga am ay notion en réseau wala en développement ci langage yi ak yu demee noonu ba pare nag après nga door spécialisé wu ñëw euh, jël affaire sécurité parce que beneen couche la. jël affaire sécurité pour que déjà nga mun a am déjà yenn dispositions yi cest à boo demee ci benn entreprise ñu wax la dana war a gérer sécurité telle application wala sécurité réseau bi bu nit ñi di mani bu bu développeur yi di def ay affaire di nga mun a xam am benn aperçu ci li ñuy def tu vois mun nga bañ a nekk nag je pense euh, benn expert hyper expert en développement comme ay ñoom euh, euh, je sais pas comme ay ñoom Ibrahima Ndiaye wala sama gars yi tu vois mais au fait il faut am yenn préalable yi nga am voilà nga am yu bari déjà nga nekk développeur am ay ci wala nga am ay compétences yu yu rigide en réseau pour que nga mën a nag mën a euh, sécuriser parce que mënoo sécurisé loo xamul je pense voilà il faut que balaa ngi sécuriser nga sécuriser loo xam déjà n'est-ce que c'est hyper clair actuellement ñoo ngi ci euh, presque une heure yi tu vois def nañ une heure de waxtaan bi tu vois yàgg na tu vois alors maintenant lan moo nekk seen mot de la fin parce que ñu ngi ci jeexitalu épisode tey bi Gérard. moom mot de la fin mooy d'abord remercier la. remercier la bu baax si li ngay def nii parce que li ngay def nii ça contribue vraiment à sensibiliser xamal nit ñi tamit ay domaines yoo xamante ne xamuñu ko loolu c'est tellement important loo xamante ne ko vraiment et puis da ngay def promotion langue wolof mooy suñu langue euh, nationale donc vraiment loolu c'est à saluer donc ak leneen lu may def mooy tamit ne nit ñi euh, nañu moytu nañu moytu nañu xam lépp loo xamante ni par exemple danger yu am si dëgg-dëgg mooy fu monde bi am na ko tamit si internet donc internet nu mu nu ngeen di gisee fii ay bandi ak yeneen kii noonu la amee tamit ay nit yu yu mën a def ñaawteef si internet donc euh, du lépp la ñuy wax du lépp la ñuy wone voilà du du du du du du lépp la ñuy def si si internet parce que internet dañ ko réglementé soo xoolee yenn saa surtout jeunesse bi daa mel ni xamuñu internet donc dañuy def yenn saa yi ay yoo xam te da ngay toog na ne est-ce que ñi xalaat nañ seen avenir xam nga est-ce que xamuñu que internet loo si dugal euh, yow peut-être mën nga ne supprimer ko xamoo est-ce que keneen jël na ko mooy loolu man amoon naa sama benn prof bu doon wax mieux vaut yow nga dem ci meeku marché Sandaga def euh, yaramu nen euh, def wane sa bopp que nga jël ko nga dugal ko si internet parce que au moins Sandaga après ñu ko fekkee rek ñoom ñoo koy waxtaanee après mun nañ ko fàtte d'ici quelques années alors que boo ko defee internet xam nga kat moo koy capturé internet même boo ko dugaloon cinq secondes nii rek nga xalaat yi da nga bëgg ko am na déjà ñu ko jël dafa gaaw ba nga xamante ni euh, après mun nga ko regretter suba mun nga jég-jégi am ay aspiration bu nga nekk président wala nekk leneen ñu génnee la sa yi ne leen wala nga dem am benn liggéey de tes rêves xam nga tey nañu xam que léegi recruteurs yi ñu ngi si réseaux sociaux yi ñu ngi xool tey Bachely su ma ko bëggee jël sama entreprise damay xool turam xool si réseaux sociaux yi xool Bachely ban nit la su ma gisee que Bachely chaque chaque jour presque su ma xoolee day def dafa nekk day dem soirée chaque week-end day dem soirée ma ne kii su ko jëlee est-ce que dina bàyyi loolu ou pas ay doute donc recruteurs yi ñu ngi xool moo tax yenn saa yi gars yi dañuy nekk di ne ah man de ba sonn je suis talentueux mais talent rek yemul donc il faut que ñuy moytu. foo ñuy moytu te ñu mën a xam que cyber cyber espace dafa yaatu mooy monde virtuel boobu noonu dafa yaatu donc tey jaroo sax xamante ak nit ki pour mën a jëflante ak moom nit ki à distance mën na def ay ñaawteef mun na def leneen ak leneen tu vois gis nañ nit yoo xamante ne dañuy yor say données ba dañ lay forcer nga xaru sinon ñu kii ko donc lu bëri donc il faut que nit ñi mën a moytu te xam nañu utiliser internet voilà bañ a xam que internet du suñu xarit du suñu meilleur ami voilà loolu laa amoon pour wax te maa ñaan jàmm am Sénégal jàmm continuer parce que ñun jàmm la ñu xamee voilà luñ lu jot am ni yàlla bu mu amaat parce que kenn xamul bu ñu demee ba tàmmal xale yi xale yi ñeme kenn xamul suba nu muy demee donc vraiment loolu laay ñaan na jàmm jàmm jàmm jàmm amiin merci Gérard franchement kontaan naa ci yow trop parce que à chaque fois buñ la soxlaa woo da ngay ñëw euh, naturellement simplement facilement donc et loolu c'est à saluer je pense que partage rek moo moo moo moo mel noonu c'est-à-dire bëgg nit ñi xam jël sa xam-xam partage ko ak ñeneen yi nekkul na ñëpp ko mën a def donc du coup ñu ngi lay remercier bu baax ci li nga accepté ñëwaat encore une fois ci euh, épisode bi alors Bamba lan moo nekk sa mot de la fin. Euh, kon benn kon la am parce que c'est la première fois aussi may def. bon podcast yi tamit li ma gën a marqué mooy ne c'est en c'est en wolof fa tu veux t'exprimer librement tamit ni même ku dee si lan lan doon wax aussi bon par rapport beneen beneen wàll bi muy côté sensibilisation bi pour que comme Gérard ni mu ko waxee nit ñi gën a def nit ñi gën a moytu moytu parce que soo waxee cyber espace sécurité informatique lool côté comme soo defee entreprise hmm, employé mun benn station bi wala benn bonne pratique yi ñu mën adopté benn benn benn mel piège mu envoyé ka yow yow nga genre yow nga facilement moom boobaa dina am si si données te données entreprise loolu loolu partie boobu noonu la mooy comme ingénieur social am na bon ci benn gaawu ndaw benn gaawu du mu du mu métro ndaw yaa yaa li ñu woowee des par exemple léegi daa am ay sites yoo xam ne daa am ay brèche te doo xam ne ne site yi sa mot wala sa adresse email dañoo wiite comme comme par exemple yaa dans le cas de Wattpad xam nga pas beaucoup de personnes l'utilisent pourtant j'en suis sûr que ñoo xam ne xam xamul ne sax mën na fi doon léegi pirates yi dañuy récupérer données yooyu léegi ils vont ils vont t'envoyer un mail léegi si lay wax ne am na données ñu bind le mot de passe texte titre ñu ñu bind le mot de passe bi ngay utiliser sa boîte passe pour autant ñoom am accès ça mais juste le fait que tu verras ton mot de passe tu vas te dire ah ñi ñi ils ont accès partir de là mën naa am benn processus de chantage bu topp ci gannaaw léegi nag soo soo soo soo fayee xaalis benn processus bu bu dul arrêté léegi dans la plupart temps dañ lay soo soo jotee genre mel yooyu bu bu parce que c'est di boulot une fois que tu es tu es une plus s'arrêter tout temps nekk di mën na laa nga chantage benn genre chantage lay doon aussi que jeunes yi surtout même si je encore jeune ñu def ñu def ñu si si internet ñu ñu soigne li ñu wooyee seen i réputation comme Jara ni mu ko waxee tey benn recruteur su dee day xool yow looy liggéey si internet parce que dem nañ ba si jamono joo xam ne li def au niveau de ta vie au niveau physique moom repa moom dem si niveau virtuel comportement bi ngay am si monde physique bi ak comportement monde virtuel bi ak loolu la ñuy woowee monde monde numérique euh, yow sa jëmm sa jëmm bopp yaa ngi ci numérique mana yow yaay xool nooy def ba topp conseil yi pratique yi au niveau d' internet mot de passe choisir nooy def ba choisir mot de passe mot e de passe bu baax nooy def ba duñ la mën a piraté paramètres de sécurité yi nga koy nga koy lire ça parce que fii bon au Sénégal wala dans le monde bon tey dañuy inscrire si Facebook en pour autant ñu lire paramètres de confidentialité dañuy def ok ok rek ensuite ñu ñu ñu ñu dugg si biir sans pour autant lire le le soo demee ba supprimer a photo sa photo dem mhm. nga nga tourner a ko fene ah mais pourtant je l'avais supprimé Facebook moom nee la yow foofu foofu sa dugal rek bon ñoo moom si bëggoon naa si bëggoon naa yow si bëggoon naa ok ça c'est hyper intéressant li nga expliqué alors maa ngi leen di remercier yéen ñaar ñëpp bu baax maanaam ba ak Gérard euh, di féliciter aussi ba ci euh, travail bi nga xamante ni mu ngi koy def ci cyber 221 parce que je l'ai découvert aussi ci fan yi alors c'est hyper intéressant maa ngi remercier gérar bu baax aussi nga xamante ne à chaque fois il est présent euh, di wax aussi que ne Wolof Tech challenge la man dama ko gisee comme challenge c'est-à-dire kenn ku nekk buy ñëw c'est-à-dire xam-xam bi nga yor ci sa bopp bi technique bi nga yor ak challenge bi mooy nga fexe ba génne ko en wolof pour que ñëpp mun cee jëriñu pourquoi parce que imagine toi da ngay liggéey pendant des années sa ñi nga nekkal sa kër sax wala sa ay frère wala say petit frère mun nañ ñàkk xam li ngay liggéey alors donc je du coup je me dis que ne avec wolof bi boo ñëwee sa kër war nga leen mën a expliquer d'une manière très basique c'est-à-dire d'une manière pédagogique ñu mun a comprendre par des exemples li ngay def lan la. loolu da leen di jëriñ et je pense que méthode d'éducation la boo xamante ni euh, parents yi frères yi war nañ ko mën a utiliser pour seen doom yi wala seen rakk yi c'est-à-dire naka lañ leen mën a inculquer yenn savoir yi ak yenn connaissances yi à travers des exemples basiques à travers le wolof à travers langue langue bi nga xamante ni moom lañ namp c'est-à-dire loolu sax dalay lay permettre yow mi nga xamante ni yow yaay euh, mag bi wala yow yaay yow yaay yor xam-xam bi nga gën a ñoŋ ci li ngay def cest à da ngay gën a comprendre Euh, bu njëkk dañ naan wax yow boo bu gisee nit am xam-xam dañ naan la kan moo la jàngee c'est-à-dire kan nga doon expliquer ba am xam-xam parce que des fois di nga am xam-xam bu bëri mais boo ko expliquer rek ci ngay rendre compte que am na lu bëri loo comprendre toon yow wala am na lu bari lu la manqué. alors boo koy def aussi en wolof wala nga koy def ci beneen langue bu boo xam ne langue langue nationaux yi la tu vois alors da ngay rendre compte que ne sax yow yu bëri war nga ko mun a expliquer d'une manière très claire. très basique ci ay exemple terre à terre pour ko nit ñi comprendre donc loolu mooy challenge bi nga xamante ni moo nekk ci man moom lay dund chaque jour avec Wolof Tech bi moom lay invité aussi euh, ñi nga xamante ni ñoo ci ñëw à chaque fois ñoom tamit ñu mën a def challenge boobu aussi et c'est hyper intéressant et je vois que ni sama invité yëpp ñu ngi koy réussir macha allah et pour cela maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax. alors les amis merci beaucoup merci encore euh, ñu ngeen di jox dig daje ci beneen semaine ak beneen épisode ci Wolof Tech incha allah merci ciao.